jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajafal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax na tey nag ñoo ngi fii Medina seet si ki nga xamante ni mooy Ndoof mun naa ne Ndoof bi nga xamante ni moom laa mën naa ne Ndoof bu Faas ak Ndoof bu kan léegi Bawol Bada Joon waaye nee ligri bu Faas la Faas la tey ah bi gis nga tey nag moom lañ seet si woon bëgg waxtaan ak moom Fass euh, kii Bawol rek Fass Bawol moom lañ seet woon bëgg waxtaan ak moom ndax mbokk yi kenn du leen présenté ki nga xamante mooy Ndoss ndax bëri na fi combat yu métti métti combat yu yàgg yoo xamante ni nii dox na bëri nag waaw baax na waaw bëri ki nga xamante ne mooy Garga 2 bëri ki nga xamante ne mooy Alioune Seye su ma ko dee lim du ma fi du ma fi jógee mais moom xam naa bu ma ko nuyoo pare dinaa ko bàyyi mu limal ñu palmarès li mu fi jot a def ndax def na fi 16 combats xaw ma 17 combats ba noppi nag daw daw comme ni ko mbëri defee daw na dem États-Unis jóge fa daw delluwaat Paris ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doo a dugg ci waxtaan wi Ndof nuyu naa la. waaw fay naa la di nuyu waa Sénégal gépp di nuyu waa àdduna bi di nuyu sama mbokku bawal bawal yëpp di nuyu waa Médina di ma nuyu France fi ma nekkoon di nuyu supporters yi lam yi ak ñi nga xam ne dañoo bëgg Ndof ñi koy doon bégee. ba léegi sax damay génn dama ma gars yi ne ma ah mbër ñu ngi xaaraat retour beeg yooyu daal ñi ñi ma doon safoo gi ñëpp daal maa ngi leen di béggee di leen ziar bu baax a baax a baax ñooñu dañ lay kookali wala non ñooñu ñooñu kookali wuñu man non damay dellu siwaat incha allah dellu siwaat non di nga ba pare fan ngay dellu siwaat laa ci làmb ah ouais ci làmb ji non nag ndóof nag bu ñu waxante état bi ma gis moom bëriwul moom waaw mais état bi fi mu doon des na làmb ji des na ah. saison bi waaw kee la kees lay lay tijji mais il faut que nu pare pare ndax combat mën na ko pare ci une semaine mën na ko pare ci deux semaines. Mhm. da ngay dem liggéey waat iri doole ju wóor ndax làmb ji xale yi ma gis ni il nga yor doole pour daan leen. mais Ndof bu la promoteur seet si waatoon ne la Ndof avancé ngi nii di ko jël. ah oui pourquoi. <laughs> da nga koy jël kay. Adama Ndof mi daa dëgg fit de. ah mais mais mais. mais man ñi ma gis ñu dem ñu ñu ñu voyagé woon ñëpp ku ci ku ci nekk boo ñibbisee moom tàggoo nga ak làmb moom. ah mais la mais benn laa laa gis. mu dem ñëw na dee du bàyyi. mais mais lii Sarko mooy ñun rek ndax làmb li ma waxoon rek ñun ñëpp mooy sadit la ci ñun daal ndax euh, ginnaaw yàlla. Mhm. lamb moo nu may lépp làmb moo gën a oyofal lépp. lu nu bëgg a mhm. dugg rek. lamb moo ko moo ko leeral daal ndax du ñu demee ba ñuy dem ci ambassadeurs yi ambassades yi nu ñuy may ay visa làmb moo tax. tey balaa nga xam ne làmb mooy. Sénégal am na valeur ñun yow nga gën bitim réew. Mm-hmm. ndax yan saa yi laa la wax nii même tubaab yi sax barki arxuraan du ñu tapé YouTube bi donc moo gis sama combat yi nii dañu maanaam yow lan ngay def fii. Mm-hmm. dañ lay joxaat cër fonk la fonk dañ lay fonk fonk fonk ba maanaam day taale laa la wax nii. Mm-hmm. même fi ngay liggéeye sax laa la wax nii respect bi ñu lay jox maanaam day taale laa wax nii kon nga xam ne làmb am na valeur bu baax a baax a baax na ko Sénégal yi respecte ge bu baax. Euh, mais man li ma xaw a jaaxal Ndof ñaata combat nga def 17 wala 18. non normalement bëri naa ay 16 combats 17 combats mbaa 16 mbaa 17 combats bëri naa ko ci làmb nga def 16 combats. waaw 3 euh, defar nga daan nga ci am nga ci daanu Alioune Seye moo la daan. waaw ah, ak ak Garga waaw ñoom ñoo ñoo ma daan te it li ma loo léegi non dama bëgg parce que ñu ci bëri nag dañoo war a xam ne Ndof ndaanaan la am na lu bëri lu def ci làmb nan nag bu ñu waxantee dëgg xam nga tukki des fois boo xawee génn làmb ji gars yi dañu lay fàtte. dama bëggoon tuuti nga ñëwaatal ma ci palmarès bi ñi nga jot a bëreel nga limal ma leen ñu doog a dugg ci waxtaan wi. waa lam moom euh, dama ne sama premier combat maa ngi bëreeg Yaram Gueye. de la njëkk a daan. ci combat Papa moo doon bëree grand combat ba Ibrahim 2. ci laa njëkk a Yaram Gueye de sama premier combat. Mhm. après bi ma fa jógee bëreeg Wandam. Mhm. daan ko. ba fa jógee bëree tubaabu joor junior daan ko. Mhm. ba ma fa jógee bëreeg Ndiaye Malick daan ko. combat bu méttee métti waaw. Mhm. combat boobu nag xam naa combat bu ma gën a neex samay combat la Mbaye Ndiaye ma Mbaye Ndiaye ma dafa waane woon non jamono jooju sax dafa nekk ci dynamique ay deuxième combat boo yëpp da doon daan du mm. taxaw ak te dafa songoon diggante la taxawal du la taxawal te moom bëri bi mu doon bëri du lay dóor di la paqueté waaw moom kay bu loxo bi jógee bu muy wàcc fekk dal na sa fekk na song na la bu yàgg a yàgg yàgg mm. te it boobu maa ni damaa nekk ci dynamique yi victoire yu garaaw sax mm. ndax boobu gars yi daanaguñu ma waaw te moom it boobu moom ñi ko njëkk a jox ci defet man man man ci laa bokk waaw. boo mm-hmm. jógee après bi ma jógee ci Ndiaye Malick après bëri combat spécialement waaw bi ma bëree ci jógee Ndiaye Malick Zian laa jël. Zian ba Pikine Falaay Ballé son premier grand combat. Mm-hmm. waaw son premier grand combat après euh, euh, daan ko bëri moom it bu metti fii Iba Mar waaw daan ko. Euh, mooy moom lañ moom la moom moom ci ci laa njëkk a bëri grand waaw. après parce que palmarès tam faaw ñu fàttali ko ñenn ñi. bi ma jógee après bi ma jógee ci Géant. Mhm. après ma jël euh, fëgg la. fëgg waaw fëgg la bu Lamsaara. waaw euh, gala gala lan sax. Gaston moonu tëggaloon gala. Mhm. ma daan ko ci fëgg la bëree euh, kii bëree joor non astafurlah. bërik fëgala bërik Adama Diouf Adama Diouf ñu aller retour laa ko daan mhm. dama ko daan kees daan ko fii waaw boobu ci même ci galaa bi la ci lépp bi la waaw galaa bi yow la woon Adama Diouf fëgala ak Alioune Seye 2 Alioune Seye Alioune Seye 2 moo la daan ma daan foofu mais dafa am lu ñu a jaaxal da nga jógee ci galaa boobu duggaat ci beneen galaa waaw fekk fa Gaga 2 fekk fa sentel sentel bu lam saar waaw ak kan waaw Adama Diouf waat na boolewaat na mais li nekkoon problème mu nit ñi mooy nga daan fëgala di magam jóge fa duggaat ci beneen tournoi boo xamante ne rakam moo fa nekk loolu xawoon na jaaxal ñu bari ci ci affaire yi. waaw même combat boobu sax tey ba ma koy ba ma ciy dugg ñu bëri métteen na leen ndax it. Mhm. benn ñoom ñoom ñëpp maa leen rawoon ci la am jamono jooju. mais boobu waaw ndax boobu dama xawoon a at dama xawoon a. ana ah, balance waaw ana balance léegi te toog di bëri wooy sa day xaw a metti daal. Mhm. léegi nag bi ma ci duggee ndax jamono jooju ñoom ñëpp du def palmarès parce que su ma juumul su ma juumul defe naa ne bi ñu ciy dugg fekk na Garga 2 moo ngi toll ci troisième combat. moom man moom sax xaw ko adversaire bi. waaw parce que moom nga wax xaw ma ko mais dama ko ñëw faral jàll. waaw xaw maan ko barke alxuraan ndax bi muy bëri moom boobu ñun. boobu man boobu bëri naa ay neuf combat boobu de jamono jooju. Hmm. boobu moom bëriwul sax trois combats. trois combats deux combats ci lay toll. waaw mais comme làmb doo doogee it bëriwoo it ak situation yi ngay. lan lay fàtte waaw day day xaw a metti loolu tax après mu ne ma jël ko daanu ko waaw nga dugg ci ñi am ci ñaar victoire. Euh, ñaari victoire laa ci am euh, jël ci benn défaite mooy Garga 2 bi. Garga 2 bi ngay bëri ak moom ngeen jàppante nga force force force mu taxaw moment bi mu leen rof caxabal bi est-ce que xalaatoon nga ne dina la caxabal. non mosuma ko foog nag ndax it Garga 2 du ma la waxee dëgg rek dëgg la. xam nga jàppoon na donc est-ce que suus moo xawoo ko woon xeeb affaire yu demee noonu. waaw loolu bokkoon na ci làmb ji nag ndax làmb jooju yàlla seetlee ne ci ñi ma mosuma xalaat ne moom mën na maa daan. barke alxuraan kenn dong laa ca doon suur sax ci euh, ay sentel ak yooyu mais ay gargade yu moom. waaw parce que moom nag premier combat am sentel mi nga doon koo zongale daan ko. waaw koo songale sa combat yow ak moom da koo songale mais nag jamono jooyu. sentel bu ës maag sentel dugal ko làmb sax mais sentel li tax euh, ma respecté woon ko. même du dara dafa mën a bëri tey bi dafa mën a dam ya làmb xam li ñu naan làmb mhm. moom da ko mënoon mhm. te it ndaanaan laan daal ne ko ndaanaan laan mais it kii bi may moom wax dëgg respect cër moom joxumaan ko ndax dama jàppoon ne kut kaa kut arbitre du soufflé rek xam rek damay ñëw faas ko jàll yaa ngi dégg ni ma ko waroon a respecté dëgg dëgg ci combat bi jël bu ma bette noonu ma sa am ci àlam boobu et puis wax dëgg si yàlla naqari na ma naqari boo xamante ne nii barke alxuraan laa la wax nii mosuma am defet bu ma mettee noonu daal gargi dë defet defet daan na ma garaawul moo ma jiitu am mën na ma daan mais Garga 2 bi ma daanee defet bu ma méttee noonu mës am. lu tax mu la li nga ko calculé wul woon. non calculé ko njëkk ci làmb raw ko ci làmb ëppoon koy combat ëppoon koy victoire fukki yoon juróom wa doon nekkoon sama adversaire. Mm. nekkoon sama adversaire ndax jamono jooju daanaka ñu ma doon wax ay ak mbër yu mag yoo xamante ne nii jamono bi ma bëreeg ay fëgale yi ñooñu. ñu ma doon wax ay jamono yu ay adversaire yoo xamante ne nii daanaka du nu mu Garga 2 kon ma toog année balance ma jël dugg mu dugal maag moom galaa mu daan ma il mu metti ma. Mm-hmm. ndax daanaka du dee kon palmarès rek palmarès waru noonu bëre. Mm-hmm. nag waru noonu bëre waaw. doo jógee foofu. après bi ma bi ma jógee bi ma jógee ci garga de Adama Diouf laa jëlaat. Adama Diouf daan Adama waaw jël ko euh, daan ko bi ma ciy jóge après jël euh, break sentel. sentel waaw daan daanaat sentel mm-hmm. après bi après kalaaf bi jeex. nga jóge fa yaakaar naa ah, bi ma fa jógee Paul Maurice laa jëlaat. Paul Maurice Paul Maurice laa jëlaat daan dem jël Sentel. non Sentel. Sentel ci yu mujj yi ci yu mujj la bokk non kii waaw mooy moo mujjee. moo mujjee waaw te Ibou Senghor ba ma koy jël ndax yàlla rek daanaka moom it comme li ma la waxoon ne situation sax moom sax ma jël ko mais Ibou Sane. mënoo Ibou la. mais ndaanaan la ci bëre simple. mais ci des palmarès ci bëri dóor. non non mais bu nekkee daanaan ci bëri simple te nga nekk mu ñëw daan la tamit daanaan la da nga nangul daanaan la xam nga am na loo xamante ne du daanaan daanaanam dëgg la daan na ma ni jamono jooju daanaka situation moo taxoon sax ma jël ko mais waru koon bokkoon sax sama làmb bokkoon sax sama làmb barki yàlla ndax it làmb day toll foo xamante ne nii bu bëriwul rek daanaka doo bokk ci course bi te làmb leen mooy problème mbër saaboo boo bëriwul rek li ngay per at yi bàyyi fi kenn. xaaru fi kenn est-ce que loolu tax li may conseillé sama mbokku mbër yëpp li ma leen di wax nañu xel di bëree mbër moom loo bëriwul rek loo bëriwul rek amateur nga mbër day bëri. dëgg la yenn saa yi la fay yoo xam ne sax du la arrangé mais da nga koy jël rek pour bëgg a wanewaat sa bopp. ñu bëri nag ci làmb jafe-jafe yi ñu ci am yu mel noonu moo leen ci dugal. mooy jël mbër pour bëgg a génnaat. après jël ko mu am jafe-jafe. mais mais mais nga jël Ibou Senghor Ibou Senghor daan la ñu jékki-jékki rek gisatuñu ndóof ndóof daw dem. waaw bi ma bëreeg Ibou Senghor ba na fi wax dëgg yàlla boobu toog naa fi toog naa affaire bi et puis moom it man yàlla seede na defet euh, dama mënuma tënk. defet daal bëgguma defet daal defet moom wax yàlla bëgguma ko. Mhm. defet euh, ma daanee daanaka entraînement doo ma daanee dama koy def sama bopp sàkkandumaa nag nga daan ma arène. yaa ngi dégg léegi bi man daane man bi ma koy jël boobu pare wu ma sax Ibou Senghor bi ma bëri moom wallaahi wallaahi zim boobu pare wu ma ndax donc boobu lu xam nga lu xos passé na ba noppi ak na nga ko jëlee ak situation yi na nga ko jëlee sa waay doy na waar daal mais nag garaaw loxos xos passé na mais daal Ibou Senghor daal bi ma bëri moom pare wu man daal ne ko pare wu man li ñuy wax ci mbër pare ah mais ne ko tam bëggoon a voyager tax nga lekk avance bi non non non attends lu garaaw laa la Yves Senghor awa ma koy bëree moom boobu daanaka yor naa sama lépp mhm. lu garaaw wax nii mhm. waaw boobu pare na mhm. Yves bi mu bëree moom waaw mais combat ba na ko pare moo baaxut du ci entraînement yi du ci wàllu préparation du dara daal waaw gis la déggoon da nga dem États-Unis jékki-jékki déggaat la Sénégal jékki-jékki déggaat la nga voyagé lan la woon boobu moment boobu. waaw jamono jooyu bi ma jógee États-Unis dama ñëwaat fii toog fii def naa fi deux ans euh, waaw def naa fi deux ans après bi ma bi ma jógee États-Unis après waroon voyagé waat léegi. lu ne sax dégg naa ko ay polémique yooyu sax waaye kayit yi dañ koy yaax ak yu demee mais loolu sax xam naa waxu yeneen gars yi laa ne mais nag euh, univers amul problème loolu mënut a ñàkk <laughs> waaw yaa ngi dégg léegi bi ma fa jógee après carrément daanaka benn business lan daal xamula nga business. comme nit hmm. affaire yi ni muy doxee lépp kenn mën ko wax sax. dëgg la ci ci télé yi hmm. demee noonu daal. Hmm. mais daanaka du ma demee France sax loolu moo fa yóbbu loolu moo taxoon sax ma dem fee waaye wax dëgg yàlla. bi may demaat euh, euh, ba ma amee dem États-Unis euh, sama. sa sama séjour France États-Unis daanaka dugaloon naa ko ba noppi barke daanaka lii huit fielaan France bi huit fielaan benn affaire yu taxawoon rek mooy loolu. mais mais ak ñi nga xamante ne dañ la doon gunge ñi doon ànd ak yow moment bi nga bi bi nga jugee ci ci dynamique am ci benn défaite daw dem est-ce que amuñu woon lu leen jaaxa wala lu ndax li yaakaar gi nu amoon ci yow. waaw loolu dëgg la ndax it gars yi ma am na ñoo xamante nii sama ci ñi ma doon ànd ñu may sotti galaaj. Mhm. di ànd ak man fépp bi ma neen leen dama gaay ne dama bëgg a dem tukki toog tuuti xool gars yi ñenn ñi neexu leen noonu Mhm. wax dëgg yàlla neexu leen ndax dañu ma ne yow jamono ji sa waay lu mu dee dee dee doo toogee fii ñafe instant yi di nga ci mën a génn ndax say morom ñoo fi nekk li ci des defet nii du dara dañuy dem liggéeye waat ñëw nga nekkaat ci jëlaat combat daal te boobu man gisuwaan loolu ndax it li tax gisuwaan loolu yàlla day def euh, Gaston mhm. sunu père la mooy làmb daa neexul nag mhm. mais nag ginnaaw yàlla combat yi ma bëri yëpp yëpp yëpp ma dëgg moo ko dëgg may wax dëgg rek ndax it jamono jooyu moom moo la doon tëgg normal mais jamono jooyu nekkatu fi. waaw léegi nag benn waaw mu bàyyi. Mhm. léegi nag bi mu bàyyee léegi nag wax dëgg yàlla ñu nit affaire yi xaw a métti suñu côté nuy toog di année balance. Mhm. te it làmb doo ci toogee bëreetoo sa waay yi day xaw a métti. Mhm. yaa nu xool ne situation yi leeratu sa waay nu dag biyee dem suñu yoon. mais jamono jooju du fekkoon Gaston nekk na fi ba léegi du booba wax dëgg yàlla mënoon nu fee toog resté ndax Gaston dooy wax Gaston mooy làmb dëgg la nag kalaasu nu beneen benn promoteur waaye doo bëggee dëgg-dëgg Gaston muy dundal làmp barke alxuraan mais xoolal bi mu bàyyee làmb Sénégal gi ba ci gis seen bopp mais xool bi mu ñëwaatee dafa iriwaat làmb waaw dëgg dafa iriwaat làmb mais li may wax euh, état bi nañu jàppale làmb ndax làmb tey sawaay dafa nekk loo xamante ne nii ñi ci yaakaar dafa bëri mooy jaaykatu gerte bi jaaykatu ndox bi. dafa hmm? waaw t-shirt bi sëriñ si ëwkat bi. am ñoo xam dañ ñoo jënd ticket sax taxaw jaayaat ko avant nga yegg si ah. waaw ñu bëri dañ ciy lekk ñu bëri ñoo ciy lekk ah. kon nag gouvernement bi waru naa dolli làmb jàpp ci jàppale promoteur yëpp nag mooy promoteur bu ndaw ba ak promoteur bu mag ba ñoom ñëpp hmm. ndax it làmb euh, daanaka loo bëgg dégg promoteur bi mooy lépp hmm. promoteur hmm. promoteur du amut mbër du bëre kenn du bëre kon promoteur yi fi nekk nekk nii nañ leen jàppale respecté waat leen respecté leen jàppale leen ndax it da nga ciy gis njaan ndeysaan promoteur bu dugg ren déwén doo ko gisaat. Mhm. te loolu lépp ndeysaan situation la. Mhm. ndax it ñun promoteurs yi ñoog ñoom ñooy nekk te promoteur bu ci nekk ci difficulté mbër yi dañ koy xam. Mhm. kon nag promoteurs yi dañ leen war a jàppale sponsors yi ñëwaat ci làmb ji. Hmm? gaa yi jàppale promoteurs yi bu baax daal man daal loolu laa gisaat pour lam delluwaat ci kanam daal. su ma jógee ci loolu dañoo jékki-jékki gis nga nekk Fass. ñu waa Fass bëgg la am fu la teg. nga jékki-jékki génn lan moo waral dugg bi génn bi sa diggante waa Fass. Fass nag tey dinaa la wax lu garaaw nag. Hmm. gis nga li nga wax rek Fass yàlla suñu borom doon na du duñ ma bëggoon. barke alxuraan te ma ak ñoom man bi ma génn jotewu maa nag ñoom dara dara dara ba jamono jii nu toll nii Fass mosuma joteeg ñoom dara xanaa kenn leen maa defoon jëfu xale. gis sama gars yi jamono jooju xaw a am ak ñoom ay problème tuuti bàyyi. man it xam rek ma topp topp euh, yëfu xale ak yooyu ànd ak ñoom dem mais bi ma génnee regretté naa ko rëccu naa ko damay wax dëgg rek. nga ci regret non ndax jamono jooju man du waxee dëgg jamono jooju nekkoon naa ci dynamique yoo xamante ne nii phase bu ma amee combat nit may jàppalee ak entraînement yi boog jamono jooju sa waay ni lay ni lay taxawoo. Mhm. bokkut ak ak yow nga dem individuel yow kese ak say gaay ni nii nii duñu benn ndax it phase du dul dara. université la. équipe bu mag la. comme nga ne Real nga ne Barça. Mhm. Real de Madrid waaye xam nga ne kon Fass mooy lépp. Mhm. mais cër bi la gars yi leen di jox ci làmb yeneen écuries yu ndaw yi mënuñu ko mhm. léegi nag première bi doo xësee génn Fass doo ñëwee entraînement yi ni nga ko doon respecté doo doo ko respecté noonu. day des tey sportif boo gis ci àdduna mu bëgg a champion boo xamante ne à niveau lay nekk. il faut nga am ñu lay entraîné mbër mënta entraîné boppam. ndax du entraîner sa bopp loo neex rek ngay def. dama lay wax lu leer muy sans buy pôl ku ci am combat doo nangoo joxe sa bopp rek di nga am résultat. mooy mbër yëpp nag laa koy wax. làmb moom sport individuel. entraînement la laaj condition physique bu bu bëree bëree bëree bëree ak résistance mais làmb moom nit mënu ko négocier doo ko négocier rek doo ñëw nag. day feeñ day mhm. feeñ muy lii muy laa day feeñ. waaw euh, naka nga gisee làmb gannaaw bi nga demee bi nga demee toog di seetaan làmb euh, te nga nekkoon ko xam te ne ko doon pratiquer naka nga gisee làmb Sénégal moment bi nga ko fi bàyyee ak moment bi nga demee toog. mais damay wax dëgg nag làmb moom wax dëgg yàlla bi ma demee ak ni ma ñëwaatee làmb avancé wut. damay wax dëgg non ah man li ma gis. xam nga kenn ku nekk sa xel. Mm-hmm. mais man li ma gis jamono bi ma demee bi ma ñëwaatee làmb avancé wut ndax li tax avancé wut. daanaka da ngay xool mbër yi ci mbër yi rek xool mbëri boo ci xool muy mbëri yu mag yi da toog trois ans benn combat ngay bëri mbaa nga toog deux ans benn nga bëri benn combat xam nga ne loolu du yokkute làmb doxalul làmb làmb li koy yokk mooy mbër yi saison bi lu mu dee dee dee mbër yi di xel di bëri ay trois combats gën ngaa bëri ay deux combats mais mbër boo xam ne da toog deux ans trois ans doo bëri sawaay loolu loolu loolu du yàggee sawaay mooy làmb ji day day day dellu ginnaaw mhm. ne ko dellu ginnaaw te it man li ma li ma gis ci làmb ji fi mu toll nii ñu mënoon a jàppale mooy mbër yu ndaw yi mbër yu ndaw yi sa waay seen affaire metti na trop trop trop ci benn côté nag du ma classe benn promoteur mhm. mais gis naa loo xamante ne boo yu ndaw yi nu leen koy teg jamono ji ay billets nu koy jox nu koy mhm. jox euh, booy nuy wër di jaay loolu nag wax dëgg yàlla dëgg xam naa ne promoteurs yi. amuñu moyen est-ce que nekkul li yi amul sponsor. moo waral ñu jox booy ay billets pour ñu jaay ko pour ñu mën a jàpp ci bés bi. parce que tamit yaa ngi koy wax léegi nga ne gis nga promoteur am tam bu tëggee ren bu déwénee doo ko gisaat. waaw loolu loolu loolu mën na nekk mën na nekk ndax tey promoteur tey du fekkee amoo sponsor. Mm-hmm. Euh, nga bëgg a jël sa boo xam ne da nga koy liggéey war cee dundale sa njaboot. Mm-hmm. génne ko normalement après di ko tëggee lam du boobaa doo tëggee ren déwén doo tëgg. mais du fekkee am nga sponsor boo xamante ne ñu la mën a soutenir jàppale la yàlla après pour man. xanaa doo jël ay billet di ko jox ay booy mm-hmm. mais wax dëgg la xam nga mbërëm lam ku ci jaar war a bëre ji jël ay billet di ko jox ay booy boy yi di wër xam naa nag lu metti la mm-hmm. lu metti la mais promoteurs yi xam naa nekku sax leen gënal mais it metti na jiit su mbër yu ndaw yi daal su ma jógee ci loolu damay dugg ci mbëru bawol bawol yi parce que bi nga fi demee am na fi ay xale yoo xamante ni ay révélation yoo xamante ni génn nañ fi ku ci mel ni moo kankang ku ci mel ni kéwél ah ku ci mel ni euh, bari nañu daal bari nañ ci biir xale yi naka nga leen gisee ay ñoom buur siin bari na fi ci xale yi njaay tin naka nga leen gisee waaw booy maa ngi seetaan seen combat nag ndax it euh, wax dëgg yàlla li ma la wax rek amul benn combat bu booy yi bëree te du ma ko seetaan mm-hmm. même du fekkee ma nekk liggéeyukaay sax may jël sama téléphone euh, di ko seetaan en direct seetaan naa booy yi nga wax yëpp ay njaay tiin mbay guy gi ay kéwéel mm-hmm. ay mor kankang ay njaay tiin booy yëpp daal booy bawol yëpp maa leen di seetaan bu baax a baax mais man ci benn côté dinaa la wax benn affaire booy it euh, booy ay ndaanaan la ñu daal ay ndaanaan la ñoom ñëpp mais nag jàppale bi booy seen jàppale dafa xaw a des dafa des jàppale ci euh, wàllu mystique wala jàppale ci wàllu non waxuma ci euh, waaw financement waxuma ci wàllu mystique bi mooy comme ça booy am combat am ñu taxaw nekk ci seen ginnaaw gi leen génne di leen jëndal ay billets di leen dooleel loolu dafa bokk ci luy pousser mbër mm-hmm. dafa bokk ci loo xam ne luy yokk mbër mi daal mm-hmm. day dalal xel mais it booy émancel nga am combat après commencé di wëndeelu gayen doo am ñu la jàppale tey it euh, bawol yoo xam nga ne bëri na yàlla ñu may ay teranga mm-hmm. mais nag tey jii booy da ngay gis booy yoo xam ne ndeysaan dañuy am combat ndax man ci milieu bi laa nekk booy da ngay gis ñu am combat ba ba veyu laam ji sax ndeysaan lu nu toogee sax ñaari duñ ko am. dañuy mujj dugg ak a génn te xam nga ne sa waay lool lu gën a métti ci récupération nekk sa bopp sportif boo gis ci àdduna doo bëggee mu eggi euh, ci kaw mhm. il foog muy récupérer di teel a tëdd di teel a yeewu di dem géej teel a tëdd teel a yeewu sportif boo gis mu koy def respecté boppam mhm. dëgg de respecté entraînement yi barki yàlla fii laa la koy waxee dañu galaaj de ñun ñëpp gëm nañu galaaj mais du ko yàlla dimle tuuti li mu bëgg ci sport bi dina ko lekk teel a tëdd mhm. hmm? teel a xëy hmm? respecté boppam li mu bëgg ci lam dina ko am ñu gis Tapha mu bëre woon ak ki nga xamante ni mooy Bombardier euh, ñu bëre combat bu métti combat bu yàgg fan yii passé mu mu jugee ci digganteem ak Boy Niang yàlla dogal euh, moom lañ jox ndam de ñu jox ko ndam mu ñëwaat jëlaat Bombardier ak Bombardier ci dynamique yu mu toll ndax nga gisee boobu combat Tapha Tine Bombardier. waa Tapha Tine Bombardier Tapha moom wax dëgg yàlla suma nit la moom damay wax dëgg rek ndax it hmm. euh, dañu diggante tout le temps te it yàlla def na wax dëgg yàlla lu muy dugg. Hmm. dina ma oo wax ma ne ma gaynde ah jël naa diw mbaa duñ ko bëggee jox combat sax dina ma ne ah diw ak diw ma. bi bi bi ñuy dox combat mu Bombardier woo na la ci. non bi bi ñu koy dox nag boobu boobu dafa voyagé mais bi mu ñëwee ñëw noonu bi mu jógee voyage wax na ma ne ma ah ñëwaat mais nee na ma jamono jooju mu ne ma dix jours la fi def après day delluwaat. même bi mu demee nii déggante noonu sax ci biir semaine bi nii après mu am waaye message wax ma ne ma combat am ak Bombardier taxaw na ma ne ko nag ah. comme la ma ko wax rek ah mais it comme Tafa Tafa Kaam dafa a métti ci làmb. Hmm. dafa mais man li ma jaaxal Tapha Tine moo ëpp adversaire ci làmb mais làmbam dafa yéex. waaw foofu laa bëgg a ndax Tapha li tax làmb métti ci làmb mhm. adversaire yi war a bëreeg moom dëgg dëgg dëgg gars yi du nangu bëreeg moom ndax tafaa dëgg la gars yi wax dëgg si yàlla du dee palmarès mhm. Tapha benn mbër waru ko baañ ci làmb dañuy waxante dëgg rek lenn moo fi ne des fois des fois nag muy daanu combat yi mu xam te da cee war a génn da ciy daanu daanu yoo xam te ne kenn du ko comprendre soo ñëwee mais nag làmb ji nag sa waay déglu dañuy daan mbër yëpp gis nga mbër yi ci kaw ni ñoom champion yu mag yi ci kaw yëpp. Hmm. dañuy daanante ret hmm. kii day daan kii kii daan kii kii daan kii. ñoom seen biir digganteem ak Ama Baldé est-ce que bokkoon na ci lamb yi xam te ne waroon waaw waaw wax nga dëgg combat boobu moom wax dëgg si yàlla Ama champion la wax dëgg yàlla maa ngi ko nuyu en passage. Hmm. Euh, champion la grand champion la nit ku baax la. et puis daaw màggal ga sax saan gisee nañu. waaw mais combat boobu wax dëgg yàlla Tafa pour man li gën a yàq làmbam ci la bokk. lan moo euh, bi jël bi ko sawaay daan ama mhm. ndax jamono jooy li tax ma ne euh, li gën a yàq làmb ndax tey mbër yu mag yi ci kaw mhm. am na foo xamante ne ni yow duñ la fa xawe day moytoo tuuti rek doo jëlee defet tuuti rek pour gars yi bëree waaw pour gars yi duñ la ñeme dañuy waxante dëgg duñ la ñeme carrément mhm. mais it am na foo xam ne doo fa daanoo rek dootuñ la jël ndax ñëpp koo ci wax danaa la ah, non Ama Baldé da koo daan te Ama Baldé. yegseegul ah, ci ñun waaw te Ama Baldé amul mbër mu mënta daan ci làmb ji. Mhm. Ama Baldé dafa pare. Ama Baldé champion la. Mhm. barke Alxuraan Ama Baldé daanaka day dundal làmb du feccee mu neex du bëree mu neex. Mhm. làmbam day saf làmb non làmb la Ama Baldé dong làmb la barke yonent bi champion la. kon kooku war naa mën a daan ku ne mais gars yi foofu la ñuy occasion naan non Tapha Ama Baldé da koo daan loolu tax gars yi duñ ko doon loolu li ma wax rek yàq na laamu Tapha loolu tax Tapha di toog di ànd balance ak yooyu mais Bombardier mii mu jël nii yoon la mu jël ko ndax it moo ñoom ñaar bëree nañu combat bu méttee méttee métti yow fa la la fekkoon ñëpp fa nu fekk. Mhm. mais combat boobu sa waay gis nga deret ji ni mu bëree. mais est-ce que Tapha Tine mi ñu gisoon digganteem ak Bombardier Tapha Tine taxaw suuf ay tànkam xeex est mën na koo gisaat ci combat bi. non combat bi sax euh, euh, ragal naa ne mu gën a doy waar sax. bii nii nii nii. non man li ma gis. mais boobu dama koo gis ak état de forme boo xamante ni nii. dafa doy waar parce que dem na MMA ñu dindi ci moom lu bay dindi graisse lu bay yokk ko doole ju bay mu mu wow kooku fi mu toll nii. waaw Bombardier moom euh, la grand champion la ñu nit ñu ngi koy nuyu Abbas ndax wax dëgg yàlla moom it référence la ci làmb ndax du wax ci làmb lu ñaaw. Mm-hmm. doo ko dégg mukk ci loo xam ne da koy dégg daar sa nopp Bombardier moom wax dëgg yàlla champion bu mag a mag la ñu ngi koy nuyu Abbas mm-hmm. mais it euh, euh, ndaanaan la ndax gis nga MMA doo ci duggee da lay yokk. Mm-hmm. entraînement ak entraînement làmb dañuy wax mais duñu benn entraînement yoo xamante ni daal da doo daanee sa borom sëgg ba di dóor. Hmm. di xeex ak moom ci suuf di dóor xam nga ak làmb duñu mel làmb doo defee quatre appuis jeex na kon enema ak làmb wute na mais dinaa la xamal benn affaire ci komba bi. Hmm. dëgg la moom gaynde la Bombardier moom wax dëgg yàlla aw fitam ak kattanam macha allah ak euh, am joomam ci làm foo ko tak passé na hmm. mais it mais dinaa la wax ne njoolu njoolam bawal mi gaa yi da nga ko war a sóore xaw ma nag kañ lay nekk te fi mu toll nag damaa gis ne waa bawal euh, ni ñu jugee taxaw ku jàppale ko dafa feeñ rek ci digganteem ak Boy Niang mais mais loolu nag euh, du tafaatin dong leen ko war a defal ndax tey jii comme gis naa bawol bawol yi ni nu mobiliser contre Boy Niang wax dëgg jàppale ko dooleel ko dana ko war a defal mbëri bawol bawol yëpp ndax it dëgg la Tapha mooy leader ba Tapha mooy lépp dëgg la yoon la nu defal ko ko mais dañ cee war di geesu booy yi dañ cee war di geesu booy yi jàppale booy muy dërëm muy ñaar dërëm ku ku ci am combat booy yi gars yi jàppale la defal la kees ak yooyu gars yi ket mais comme li ma la wax rek yéen gars yi ñooy ci jàpp ni ci suuf rek mais yéen booy yi day situation yu métti la dund waaw yu métti yu métti la ñuy dund mais nag Tapha moom wax dëgg yàlla euh, li naan doomu ñay bu ko ñaanal rëy ñaa ko fan wu ci kàttanu yàlla. Hmm. instant yi nu toll nii entraînement yi ma gis muy entraîné du ko gëmee gëm boppam. Hmm. te gëm na boppam sax la moom ci loxoom lay mujjee Tapha. Hmm. ci loxom lay mujjee ndax la moom sawaay la ma la waxoon rek la premiere bi ak condition physique bu wóor a wóor teel a tëdd teel a récupération ku ko ci def yàlla seede na sa résultat kanam dong ngay gis mais doo gis eh, tànk ginnaaw oui. gis ngeen tey Ndof lañ seet si woon bëgg waxtaan ak moom ci làmb parce que gis nañu tout récemment keroog ñëwoon stade ànd ki nga xamante ni mooy kéwel nga gis ko ni muy dundee làmb ak par rapport ñu bàyyi woon làmb moo tax ñu nañ ñëw seet si ko bëgg waxtaan ak moom ci làmb boo amoon kàddu yu mujj lan ngay wax. waaw man euh, comme li may wax rek comme tey jii tey fii luñ fi wax. Mhm. du dee wax nañu erreur ñoo ngi jéglu askan wépp mais dañ bu fekkee dañ fay wax lu baax ak yooyu ñun nga xam ne ay doomu aadama la ret mais nag li may waxaat ci làmb ji nu ñu jàppale promoteur yi man loolu laay wax du fekkee gouvernement bi donc mu ñuy dégg nañu geesu promoteur yi jàppale leen ndax sport euh, làmb dafa bokk ci sunu ci ay sunu culture la daal mhm. li ma la wax rek bala nga xam ne mbër am na solo nga génn dem bitim réew doo doo génnee bitim réew bala nga tàppee say combat ci YouTube yi nee naa la société bi ngay liggéey sax respect bi ñu lay jox ak cër bi ñu lay jox yow sax doo ko xam lu leer laa lay wax nii kon lam lu jara respecté lu jara fonk la daal. Mhm. na ko na na gouvernement bi jàppale promoteurs yi. waaw loolu laay wax daal lu mu mën a wax promoteurs yi daal nañ leen jàppale pour lam delluwaat ci kaw. Euh, li may li may li may tëjee rek mooy gis nañu ay combats yu jot taxaw parce que saison bi dafa tëjee combat yi commencé taxaw. yan ñaari ko parce que combat yëpp sax ñoo neex mais yan ñoo la ci gën a yan ñaari combat ñoo ci a neex jotoo taxaw. Euh, Gris Bordeaux Boy Gris Bordeaux Ama Baldé ah, euh, Boy Niang Balla Gaye Tapha Tine Bombardier Eumeu Sène euh, Balla Gaye taxaw daal ba naka gise gisee combat yi taxaw yi ban moo ñaar yan ñaar ñoo la ci gën a neex. xam naa ne combat Boy Niang Balla moom combat bu ma neex la. combat Boy Niang Balla boobu sawaay combat du combat du ne combat triché. Balla Gaye ak ni mu nekkee ndaanaan. Hmm. Boy ñaan ni mu nekkee ndaanaan. Hmm. ragal naa ne combat yi wax mais combat boobu combat bii daax ci saison 2023 bi ci lay bokk. waaw ndax Balla Gaye moom daanaka dooy wax ret làmb rek mooy lamb combat waaw combat bii nag ci la mën a wane boppam. wane ne Balla Gaye ngi nii bu baax bi wala boog comme ni ko gars yi di wax Balla Gaye non Balla moom wax dëgg yàlla euh, champion la ndax it wax dëgg si yàlla ku soxorut. Hmm. li mu def ci lamb. ak ki moromam mu daan leen ci mais daanaka lu matul euh, quatre ans. ah daanaka dooy xool mooy làmb. mais nag làmb moo xaw a demee noo xamante ni yenn saa yi nga nekk ci situation yoo xamante ni yow ñi nga nekk sax ndeysaan duñu la comprendre doo nekkee borom jom nekk Baay Faal et puis doo bëgg a wax kenn dara daal chaque jour da ngay demee sa ngor waaw mais moom euh, doo bëgg gis combat bu neex daal moom booy ñaa li ma gis ne di nga gis combat bu neex duñu dëgalee seen bopp kenn ku ne joxe. Mhm. di nga gis combat boo xamante ne nii mooy daax ci 2023 bi. gis ngeen mbokk yi noonu lay demee mooy dàq ci combat 2023 bi gannaaw nag nee na moom pare na pour bëre dangay ni nga jox si rek ñu xool léegi moom <laughs> naka lay def gannaaw nee na moom bàyyiwul waaye boo yi ma fi gis boo boo ñëwee defe naa ne dañ lay weer di leen jox dig daje nga bàyyi ma bàyyi la nga tëj maa ngi jégalu nag ak sama gars yi ma nekk ak ñoom Mbaye mm. nga xam ne daanaka fii lu yàgg la atelier Ndireen yi. fii laa la ko ba nekkee booy ba léegi. fii la ñuy fréquenté fii la ñuy def lépp daanaka ñi ay nit ñu baax la ñu ñoom Pape Ndiir ñoom Mbaye Ndiir parce que yaay dégg ñoom Fallou ah kii sama rak la ñoom Ousmane daanaka booy yi su suñuy booy nu fii yàgg nañ fi daal lépp fi lañu ko doon defee yaa ngi dégg. kon nag ñun fu nu mën di demee du ñëwaatee lu nu mën di wax ay émission ak yëpp ak fii lañ koy defee ci atelier la lañ koy defee ñoom tonton Diagne ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëgg di leen ziar. di bëggee nag suma gars yi nekk France ndax it gars yooyu daanaka man fi ma nekk daanaka daanaka euh, daam yoo xam ne gars yi du ma ba jamono ji nii lépp nag làmba tax. Mhm. barke alxuraan ñoom Fodé ah ñoom Abou Sow ah ñoom Moussa yaa ngi dégg ñoom euh, ñoom Diagne ah euh, Lamine. sama gars yoo xamante ni daanaka sa waay ni nu ma fonkee maanaam day daal laa la wax nii ndax it ginnaaw yàlla suñu borom ñoom damaa ñëw daanaka. li ma doon dund fii. Mhm. daanaka daanaka loolu la doon dund man daal ndax fonk gi nu ma fonkoon fii bi ma demee foofu daanaka lu ne leen may defal. Mhm. xoolaatul ne sa waay damay dóor ak ñoom ak yooyu. loo tax ma ne mbër gars yi dañu war a fonk làmb bu baax a baax a baax cër bi la gars yi jox du bitim réew. Mhm. non gars yi dañu fonkaat lamb bu baax baax mais maa ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp bu baax a baax a baax di nuyu waa Bawol. di ñaan ñëpp jaam di ñaan magal gi ñuy dugg nii ndax ñun ay murit lañu di ñaan borom oto yi yëpp nañ def ndànk ah, nu dugg ko ci bisimilahi rahmaani rahiim jeexal ko ci alhamdulilahi rabil alamin di ñaan lépp lu nuyu lépp lu nu ñaan ci màggal gi ret ci deux mille vingt deux bi yàlla na ko yàlla def ay yiw borom oto yi nu def ndànk ñaanal àdduna bi yàlla wàcc ci jaam ak sutura ak xiwal yow it maa ngi lay yow nit ku baax ah, di ziar ak ñëpp di bëggee ñëpp maa ngi ziar suma waa dëkk waa Ndreeb waa Réfane ah waa ah di béggee ñëpp daal maa ngi ziar ñëpp di ziar ñëpp waa Ndiréen di nuyu le grand coach Louga Louga li may nag ancien gloire la léegi màggat na léegi non ancien gloire nga koo daal ah, eh Ilimane Sarr le grand coach Ilimane Sarr waaw Mbaye Diouf sama grand frère gannaaw ñoom moom ñoom ñoo ma dugal ci làmb maa ngi leen di ziar bu baax di nuyu sama gars yi nekk euh, Gabon ñoom euh, Turquie Sal Ngounin ñoom Modou Diarra yin daanaka di nuyu gépp ñëpp daal di nuyu sama benn copain bu nekk États-Unis Girif Sougou mhm. waaw moom suma xarit la donc mooy maa ngi koy big bu baax di yaar ñëpp oui. gis ngeen ni lay demee ci Wassare Lamb di leen jox di dajee beneen yoon ak yeneen mbër jaa ngeen jëf.